salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk julli di mbokk taalibé yi yéen ñi bëgg barkeelu si liggéeyub taxawub jumaawul tuuba jëm si entretien wala maintenance wàccaa yu màggal Touba dundal weeru koor dundal gàmm saytu armee lu baaqiya yi taxawu personnel bi si wàllub social ak yeneen waa association nationale muqaddimatul xidma Espagne ngir indi ak jàppandal si liggéey bi si ndigalu sëriñ Afia Bousso imam mi jiite daayira bii ñooy yëgal mbokk taalibé yi nekk si diaspora bi rawatina waa Europe ne mën di yónnee seen i barkeelu si transfert bancaire si compte association nationale Muqaddimatul Xidma Espagne ci Caixa Bank numéro ES 17 21 00 15 11 87 02 00 500 647 Biki Swift Caixa Bank BBXXX mbokk yi ku si nekk si Sénégal mbaa ci Afrique compte Orange yi mooy compte yi nekk si moomeelu daayira bi di 77 696 86 17 képp ku soxla yeneen i leeral jokkoo ak daayira bii si numéro yi ñuy bëgg joxe mosquée Touba. 77 434 33 15 wala si 76 697 60 41 bu dee Europe jokkoo leen ak Serigne Assane Diop si plus 34 632 581 998 Serigne Fallou Dia plus 34 631 216 262 jumaay Touba ji nag Serigne bi nee na yàlla sunu borom may na ma ab tabax bu ne seng bu fi des ba aljana waxoon na it ne ku feeñ si liggéey bi di nga feeñ ba faw yàlla na mu yàlla dimbali. ñu mën di si jëf ba faaw te yàggal fi sunu kilifa gii Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ak mboolem njabootu Serigne Touba gépp jërë ngeen jëf. bisimilah. Eh, asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, ginnaaw bi ñu sant yàlla eh, sant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Seexna Ahmadul Xadim Eh, di ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha mu yàgg fi loolu te ànd ak eh, tey jii nag ñoo ngi fii ci kër Cheikh Mouhamadoul faadal moom Cheikh Abdoul Khader al imam eh, di imaamu jumaa ji nga xam ne jumaay Cheikhul Khadim ji muy suñu kilifa ñu bàyyi ko nag tey ci Sëñ Afia Bousso ñëwoon doon ko siyaare si suñ siyaar bi nag mu mel ne sama jëmm ji ginnaaw bi ñu jotee ndigalal eh, sëñ Afia ak ndigalal jëwriñ yi nga xam ne lañ àndaloon ci liggéey bi ñu daan taxawu muy ñëw ci jumaa ji loole nag ñu amoon lu nu ci Seex Muhammadul Muntaxa eh, baaxe woon ci lu jëm ci liggéey bi ndax daf ñoo waxoon benn jamono eh, ci ay oto yoo xam ne Espagne liggéey na ko lu toll ci ñetti oto indi ko fi Euh, ba ko jiitu mu xamaloon na nañu yéen dey tey am naa occasion bu mag ci wax sama ferte wax sama yéene ak sama bëgg ci liggéey bi ndax yéen yi nga xam ne lu jumaa ji soxlawoo ngeen taxaw ko ba mu agsi daa am lu ma leen ci bëgg a dollil euh, wax ko ci kanam moom sëñ Afia ak mbooloo mi ñu àndaloon mun nañu ma jumaa ji day liggéey bi ñaari liggéey la muy matériel bi nga xam ne mooy taxaw jumaa ji euh, ak ñi nga xam ne matériel bi ñëw ci jumaa ji ngir entretien bi waaye nag ñi nga xam ne ñooy taxaw matériel bi tey liggéey ci biir jumaa ji euh, daam lu leen ci bëgg a dollil ñooñu nga xam waaw nga xam ne ñooy ñooy taxawu liggéey bi muy muy muy muy muy muy muy muy muy muy ñi ci biir liggéey bi dama bëgg ngeen boole ko ngeen boole seenub liggéey ci liggéey bi kon nag liggéey boobu nag lañ doon indi eh, ñëwoon di siyaare sëñ Fallou di ñaan yàlla suñ borom guddal mu wéral ko yàggal ko di wax ne daal mbokki taalibe bi yëpp ngi sàkku seen ñaan ba liggéey boobu tam lañ ci yéene rek eh, te na ko sëñ bi bëggee ñu man koo jekkoo noonu na nag Espagne googu ñu bàyyi ko ak mboolem bitim réew yëpp waa diaspora bi waaw jërëjëf Mbacke. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu nuy nuyu sëñ Assane ak mbokki Espagne yëpp di yëgal mbokki taalibe yi fa nekk yëpp ne li ngeen yóbbante nii muy fukki junni yi ak ci man jot naa ci mboolem lu ko mosoon jot naa ci maa ngi ñaan yàlla sàmm leen te yokku leen lépp lu ngeen yéene def ci yoonu sëriñ bi yàlla jàpp leen ba ngeen def ko ngeen am ci ngërëmul sëriñ bi te ku am ngërëmul sëriñ bi am na ngërëmul yàlla am na ngërëmul yonente bi euh, dina am dana defaru àlaxira am dana defaru euh, euh, kon maa ngi sant ñëpp daal di leen gërëm waxtu waxtu waxtu wee xat na kon <laughs> waaye ngeen xam ne jublu bi daal mooy cant ak ngërëm rek lépp lu ngeen mas a lu ñu mas a yónnee rek agsi na maa ngi ñaan yàlla yokk allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ali muhammadin kama sallayta ala ibrahima wa ali wa barik ala muhammadin wa ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ali ibrahima fil alamin innaka hamidun majid allahumma salli ala sayyidina muhammadin salatan tunajjina biha min jami al ahwali wal afati wa taqdi lana biha jami al hajati wa tutahhiruna biha min jami sayyiati wa tarfauna biha indaka ala darajati wa tuballighuna biha aqsa al ghayati min jami al khayrati fi al hayati wa ba'da al mamati طول لنا عمرنا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله ودمرا كل أعداء تضر بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم waaleykum salaam wa rahmatullah ginnaaw bi ñu jiitalee ci saar bi Cheikh Maodo Mountakha Euh, tey jii nag ñoo ngi am mbégte lool teew fii ci al imaam euh, sëriñ Mouhamadou Mamoun Bousso muy imaamu ratib bu grande mosquée bu Touba euh, ñu ngi bàyyi ko tam ci cheikh Mouhamadul Fadal moom cheikh Abdoul Khadar bañ fa jógee lañ egg si fii ñu ngi ko fekk fii ci statut islamique bu sëriñ Mbacke Bousso fi lañ fekk sëñ Mamoun. Euh, sëñ Mamoun nag moom day koo xam ne xam naa di ko présenté baa nga cay wax ndax jàpp naa ne boo tuddee sëñ Mamoun boo tuddee sëñ Mbàkke Buso euh, moom tudd waajuram jàpp naa ne foofu foofu la xam-xam yam euh, tey jii nag sunu jataay bi li ko waral mooy bàyyi ko ci sëñ Afia Buso al imaam mi nga xam ne mooy suñ jëwriñ ci daayira Muxaddamaatul Xidma mu am liggéey bu mag boo xam ne daayira Muxaddamaatul Xidma dañ koy diaspora dañ koy liggéeyal Seexul Xaddim mu jëm ci jumaa ji muy lu aju ci matériel yi ak lu aju ci bépp taxawaay boo xam ne daayira bi mu ngi koy woote euh, mu jëm ci màggal wala mu jëm ci koor wala ci entretien yi loole nag jëmm ji toog euh, ñun mën nañ cee seede ndax am na loo xam ne moo ko ci yokk euh, dolli ko ci Eh, gannaaw kàddu ya nga xam ne Cheikh mun taxaa moo ñu ko waxoon ndax tey suñu teew fii mooy eh, jëfe ndigal loo xam ne Cheikh Mountakha moo ñu ko joxoon ndax Cheikh Modou Mountakha moo ñu waxoon ne eh, ci sunu ñaareelu oto bi nga xam ne waa Muxaddamaatu ma Espagne ñoo ko fàggu woon muy ab neuf place ñu fàggul ko waa jumaa ji ngir personnel ba fay liggéey bi ñu egsee ba jëbbal ko mun taxaa daf ne tey de am naa ferte lool am ci occasion ndax yéen da ngeen da fekk euh, xalaat yu ma yoroon te bëggoon ko lool ci liggéey bi euh, yéen nag ngeen jóg dox ci liggéey bi kon nag loolee danaa leen ko yegge baaxe leen ko loolee mooy Cheikh Mountakha daf ñu waxoon nañu euh, liggéey bi ñaari liggéey la muy matériel bi nga xam ne moom la ñuy waa jumaa ji soxla woo ak ña nga xam ne ñooy taxaw matériel bi noonu la na ko Cheikh taxa waxe woon euh, matériel bi nag mooy jumtukaay yi nga xam ne ñu ngi ko fay liggéeyee muy lañ fay sensé ak fay defaraat ak entretien bi mu ne loolu nag bu ngeen demee ba am ci ba am ci lu dal seen xel lu ngeen amati na ngeen ko def muy xéewal di di xaalis di leen ko indil ñoom ña fa nekk euh, boobee nag la waa Espagne ñoom daal di dégg ndigalal Cheikh Mountakha loolu ba seenub liggéey ñu boole ci lu jëm ci ñi ci biir jumaa ji ba tey jii bi ñu agsee tamit ak la ko jiitu euh, noonu la ñuy def ak si sëñ Afia taxaw li jëm ci euh, wàccaay wi nekk muy màggal gi euh, ak it li nga xam ne mooy jóg jëm ci ñi nga xam ne ñoo ci jumaa ji loolee nag landu ci sëñ bi dénkoon mooy ñi ko ñi koy xeel te di ko gontal ci jumaa ji seen yitte jëpp di liggéey yi ñooña kenn gon cee kawe imaam yi nga xam ñoo nekk ci bopp bi ak bayaankat yi ak ñi nga xam ñooy buub yeeg waa daare kaamil ak képp koo xam yaa ngi aju ci biir jumaa ji te ne fa nekk rek loolee dan fexe nañ ba lan yor am lu jóge ci loola ñëw ci ñoom loolu nag lan doon seedal sëñ Maamun di xam ne nag lan ca yéene ak lan ca bëgg àggagun ca waaye nag am nañ yaakaar akuk dolli ko ci ne yàlla mën na noo dimbali ba na àgg ca ndax ki fi nekkal Seexul Xadim da doon ak bëggam ba ba ba baaxe woon na ko kon nag loolu lan doon indi di ko seddal ñi nga xam ne ñoo doon jëf-jëf ji nga xam ne seen jëf jooju indil nañ leen ko ci fi taxoon ñu ñu ko doon liggéey euh, li tax ma ne nag sëñ Mamoune am na lu mu ci dolli loolu noonu xam nañ ko euh, ndax bagage yi nga xam ne ñu ngi koy gis tey mu doon bagage yu baree baree bari euh, moom sëñ Mamoune bi bi loxoy jumaa ji accès ci moom muy kilifa jumaa ji barabu seexul Khadim bi mu tombeek ñu indi ay machine yoo xam ne mooy fo mooy mooy nettuwaayu karo yi daf ne seen machine bi dawal leen ko ba ci biir barabu seexul xaddim bi ma seddal ko sëñ Tuubaa ñu dawal machine bi ba egg see mu seddal ko sëñ bi mu daan sëñ Assane liggéey bi moom euh, bis na ko tey sëriñ Tuubaa moom da koy gën a yokk rek te tey ji loole damay wax ne moo moo moo nu topp ba sëñ bi sax jox ñu ndigalul sax euh, tapp yi nga xam moo ci jumaa ji waa Espagne ñoo ko mujjee yeesal boobeeg tey itam euh, matériel bu ne jóge na ci Espagne ñëw ñëw ñëw ñëw ñëw ñëw ci jumaa ji kon sëñ bi ñoo ngi lay jottali daal um, nuyoo ba diaspora bi yëpp rawatina nag muxaddamaatul xidma Espagne bi nga xam ne ñoom waxtu wu ci nekk seen soññee mu ngi jëm ci lépp lu aju ci biir euh, liggéey bi muy matériel bi ak ci sociale boobu euh, looloo taxoon ñu ñu ñu ne nañ fi ak agsi euh, siyaara la Euh, jottali la nuyo bi di xam ne tam ñoom ñëpp ñoo ngi sàkku euh, ñaan ba lin yéenee liggéeyal sëriñ Tuubaa euh, ñu ñu mën koo defee ni ko sëñ bi bëgg ndax kat noonu sunu yéene moom egg na ca sëñ Tuubaa moom ku ko tudd xam na ne léppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la te ku dem Makka ak Medina da nga fa dégg armay ni sarafay ni loolee nag kàttanu saayir gi moom Euh, moom moom moom gëm na ne sëriñ bi mën na koo jox ndax goog goog biir géeg baatin bi moom sëñ bi di di di feesal na ko dell kon nag ñun ñi nga xam ne suñ yitte jëpp mooy nekkal ko ci liggéey bi liñ ci sàkku rek mooy am gàttandum sëriñ bi ak tawféex loolu daal lañ ne na ñëw si aari sëñ Mamoun fekk ko ci daara ji nga xam ne nag daara daara yi sëñ Mbàkke Buso la euh, kon sun xel dal na wa rahmatullahi ñoo ngi leen di delloo nuyoo di leen sant ci seen taxawaay di leen sant ci seenu coono di leen sant ci seenu liggéey bu ngeen di liggéeyal Sëriñ Tuubaa te de jaarale ko ci jumaam ju tedd ji ak ñi ko fi nekkal nga xam ne moom moo ñaanoon ca Matlabul Fawzayni ne yàlla defal ko way taxawee yoo xam ne ñoo koy taxaweelu liggéey bi nga xam ne mooy lislaam ji ak salawaatul xamsi ak lépp lu aju ci juma lu jumaa di def lu ñu def ci jumaa mu am ñu bàyyi ñaan yàlla mu may ko ñu ko taxawee yàlla defal nag ko kon nag tawfeex jooju yi ci taxawaay boobu ci la yàlla boole yàlla yàgg lool daanaka li ci am solo te ko wax lépp wax ngeen ko ñu ngi sant Sëñ Muntaxa rek te li ko ñaanal mu yàgg fi di santit ñi nga xam ne ñoom la ñoo koy taxawal fii ci eh, jumaa jeeg lépp lu ci aju ci taxawaay julleeg njàngum alxuraan ak seetal ak lépp lu ci war rek ñu koy def yëpp ñu ngi leen di sant bu baax kon nag ñëw gi nga fi ñëw bàyyi ko ci dëkk yooyu ak réew yooyu ak taalib yooyu dajale seen addiya ba def ko ci njabootu sëñ bi ca nga xam ne ñooy taxawee liggéey bi la ci jëm si ci man ak sina maa ngi saarewaale ñi ci des ñëpp ne kenn ku ci ne dem ngeen fi moom ba jëflante moom li ngeen war a jëflante moom sëñ Tuubaa nag day koo xam ne boo ko di liggéeyal waaye boobu sam xel daal ndax moom يهطي من أفنى في الضلال عمره لا la من لم يخالف أمره day fekk ku ko defalul dara mu fajal ko yaajoom mu di ko fajal yaajoom rawatina koo xam ne kii nag guddeem ak bëccëgam ak léppam génn ko kon nag ngeen xam ne kon léegi seen taxawaay bi taxawaay bu dëgër la liggéey bu rëy la bu rafet boo xam ne bi toofa ngeen am ci def ko ndax liggéeyal sëñ Tuubaa benn gën a caa liggéeyal ko ci jumaam ji nga xam ne lim daj ci dunduk àddunaam gépp jumaa ji taxaw rek moo ci jiitu muy lislaam bi taxaw kon nag lislaam boobu yi eh, sëñ Tuubaa taxawal ba mu taxaw moo am ñoom fi teg ñu di ko ci liggéeyal ngeen di liggéey ci ñooña seenu liggéey kon mooy liggéey bu wér ne Sëñ Tuubaa na ko nangu ñoo ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm li ci mat wax lépp sax wax nga ko damay indi ne agsi nga ci man rek seeral ne agsi nga ci man agsi nga ci ñeneen njaboot gi nga xam ne ñooy taxawe liggéey bi ñoo ngi leen di sant te di leen gërëm te ñaan ngeen mu yàgg ci seeni loxo ngeen yàgg koo taxaw te ñu yàgg koo ànd ak yéen am ci ngërëmul sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa moom liggéeyal ko ku la koy def ku la ko ku la wan yoon wi danga ko war a sant ba noppi nag mm, dogg ànd ak moom la ngay ànd ak moom ci liggéey ba kon nag jërë ngeen jëf sant nañ bu baax ñoo ngi ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi bu lool yàgg taxawu lislaam bi mm, mbooloo mi nga xam ne ñoo ne ci jumaa ji sëriñ Afia ne ci seen kanam jullikat yeeg noddkat yeeg barakat yeeg jànkati kaamil yëpp ñoo ngi leen di gërëm te leen sant te tey ñaan loolu ñu nekk loolu ñu bokk nekk ñu bokk ci yàgg te am ci na ngërëmul sëñ Tuubaa ñoo ngi koy yaakaar te di ko ñaan jasakumullahu anna xayran li nga wax rek doyoon na dama cee dolli kàddu yi li nga wax doyoon na wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf xam na sant bu baax rek tey ñaanal al imam mu yàgg fi lool tànd ku wér waaw ndax euh, sunu xel dal na sunu yaakaar dolliku na euh, alhamdulilahi rabil nag bu ñu egsee kàddu yi nga xam ne tam sëñ wax na ko ci diggante sëñ Tuubaa ak liggéey bi wax digganteeg euh, ñi ñi ak ñoom di taxawu liggéey bi kon nag loolu ab soñu la ci ñun gën a feddliwaat sunu laxasaay ba lay sunu yéene ci liggéey bi maanaam ñu amee ko niñ ko bëggee waaw mu yaatu ba. Euh, la nga xam ne noo koy fàggu te di ko fàggu euh, diggante màggal ak ak ak ak koor euh, suñ borom liggéey bi kàttanal nu bañ koy mën a def weer wu nekk mu ñëw kon nag noo ngi sant yàlla bu baax te ñaan ñu teewe koy déwéni déwén di jaajëfal ñëpp nag mbooleem ku nekk ci diaspora bi rek ci bitim réew te ñaan liggéey bi nga xam ne mooy ñëw ci ci jumaa ji moom ñiy borom liggéey bi te ñi ñi ñi ñi ñi nga xam ñooy kilifay liggéey bi te di ko taxaw sedd nañ cant gi a ngërëm li xam ne lépp rek eh, daje nañ ceeg ngërëmul sëñ waa kon nag sëñ maam jërëjëfati suñu xel dal na bu baax a baax bu so bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahuma salli ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa asna xadimihi wa sallim taslima asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. noo ngi sant sunu borom subhaanahu wa ta'ala di julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam di sant bu baax Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di ñaanal Cheikh Mouhamadunil Muntaqa <clears throat> sunu borom gën ko fee yàggal lool tam ànd ko wér naal yi mu naa la liggéeyal lislaam mu àggale ko àggalin wu kawe njortam te nu ànd ko ak moom di nuyu bokki taalibe yëpp ak fu ñu mën a nekk rawatina bokki taalibe yi nga xam ne ñoo féete bitim réew di leen sant bu baax te di leen gërëm di jël nuyoo boobu yi ak cant yeeg ngërëm yi di ko teg ci loxol sëriñ Asan mi ngir mu jottali ñu ko bépp taalibe rawatina nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci liggéey bii nga xam ne moom la ñuy liggéey ci biir muxaddamatul xidma yàgg nañ fee ñëw lool di ñu indil addiye ji yi nga xam ne moom lañuy dajale ñoom bokki bi yi nekk foofee ci bitim réew te am ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha yàgg nañ fee ñëw ci koor gi ak ci bu ñu weesoo màggalu Tuubaa gi sant bu baax a baax ci loolu di leen ñaanal sunu borom ci barkeb sëriñ bi lépp lu ngeen ci yéene suñu borom defal leen tawfiq ngeen man ko defal leen tawfiq jëf ko te bu ngeen ko jëfee ngeen jële ci ngërëmul sëriñ bi ñan mu yàgg lool te ànd ndimbalak ndimbal ak ci barkeb sëriñ Touba ñoo di sant bu baax a baax a baax di leen gërëm di leen xamal na rek liggéey bi moom yàgg naa agsi yàgg na lool ay at yu bare bari at mu nekk rek danañ ko indi ni ñu ko ande kon nag noo ngi ñaan ci baaxuk sëriñ bi li nga xam ne moom la sëriñ bi fàggul képp ku koy liggéeyal yàlla na leen ci sëriñ bi fekk loole ba defal leen ci lu kawe seen jort noo ngi leen di sant bu baax a baax te di leen gërëm jërë ngeen jëf barkeelu si liggéeyub taxawub jumaawul Touba jëm si entretien wala maintenance wàccaayu màggal Touba dundal weeru koor dundal gàmm saytu lu bàqiya yi taxawu personnel bi si wàllub social ak yeneen waa association nationale muqaddimatul xidma Espagne ngir indi ak jàppandal si liggéey bi si ndigalu sëriñ afiya buso imam mi jiite daayira bii ñooy yëgal mbokk taalibé yi nekk si diaspora bi rawatina waa Europe ne nag mën nanoo wéy di yónnee seen i barkeelu si transfert bancaire si compte association nationale muqaddimatul xidma Espagne ci CaixaBank numéro ES 17 21 00 15 11 87 02 00 500 647 Bici Swift CaixaBank BBXXX mbokk yi ku si nekk si Sénégal mbaa ci Afrique compte Orange Money yi mooy compte yi nekk si moomeelu daayira bi di 77 696 képp ku soxla yeneen i leeral jokkoo ak daayira bii si numéro yi ñu bëgg joxe mosquée Touba 77 434 33 15 wala si 76 697 60 41 bu dee Europe jokkoo leen ak Serigne Assane Diop si plus 34 632 581 998 Serigne Fallou Dia plus 34 631 216 262 jumaay Touba ji nag Serigne bi nee na yàlla sunu borom may na ma ab tabax bu ne seng bu fi des ba aljana waxoon na it ne ku feeñ si liggéey bi. gi di nga feeñ ba faaw yàlla nañu yàlla dimbale ñu mën di si jëf ba faaw te yàggal fi sunu kilifa gi Cheikh mun taxam Mbacké ak mbooleem njabootu Serigne tubaab gépp jër ngeen jëf.